maa ngi leen ziar di leen di am contact si yéen waa Pikine mi ñëwee taxaw fi vraiment doon ñëw si année yi tey waa mouvement Lepp Pikine pour le développement gis nañ leen fi di nañ fi def nañ fi ay jéego yu am solo vraiment ñu ngi gërëm waa gox bi yëpp di sant lépp yàlla nañ suñu borom may ñu yàgg ko teewee di gën a taw xam naa ni déwén aussi danañ bëgg nañ ci def yeneen jéego yu ëpp yu ñu ci def ren daal incha allah. vraiment ni ma ko gisee daal sama xel dal na. parce que ñëpp teel nañoo ñëw depuis huit heures ba léegi ñu ngi lu ñu waroon def def nañ ko ci daal. nit ñëpp prochaine fois ñu gën ci teel a jub a ñëw ñu teel ko def képp ko nag lu am mooy boo mën ko ñëw nga dimbalee ko ak di ko rafetlu bu baax baax a baax di gërëm ñëpp parce que jaay bàyyi seen yitte xam nga ñëw teew te lii liggéeyal suñu borom mënu koo gën a wees parce que ñi tëdd moo luñ seen bopp dara mais njaboot gi ñu fi bàyyi daal li ma la ko mën a waxee mooy liggéeyal yàlla dëgg la daal liggéeyal yàlla la waa lépp gi na tam ñu leen gërëm baax seen teewaay rafet na trop depuis sa suba ba léegi ñu ngi fi di góorgóorlu vraiment kontaan nañ liñ bëggoon lii la rek ci ñëpp génn ñu xàccendoo dóorandoo mooy àdduna affaire bi du Pikine kese Pikine géejawaay fépp la waaw mais mouvement Pikine bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaw bu dee benn personne sax gis nañ seen participation gars yi kontaan nañ ci ñoom trop te déwén ñaan nañ yàlla mu gën a yokk incha ñuy mbooloo mi teewoon déwén ñëpp teewaat ci kattanu borom bi may ñu wér ak wér la waaw non fii amul star fii star bi boo xoolee kenn muy yàlla suñu borom moo fi tëral ñëpp kooku star ñëpp rek si boo xoolee ay kiiwam lañ ay élément am bi kenn la muy yàlla. waaw ñi ngi saluer gars yi di kontaan ci ñoom lépp lu ñu def fii yàlla na ko yàlla fay acte bu noble la lii lii kenn mënul am fayam daal parce que xam nga ñiy tëdd fii mënuñu seen bopp dara léegi ñun rek ñoo mën ñun doomu aadama yi mais ñu koy saluer bu baax saluer et puis waa lépp Pikine ñu ngi rafetlu seen taxawaay ci ak ci acte bu noble bi ñu def parce que du ñun ñuy kase nax ñoo fi nekk am na ñoo xam ne ñu ci biir di job mais lii dafa neex quoi. homme politique yi nag ñu ngi leen woo bu déwénee ñoom ñëpp ñëw jàpp ci sumi seen couleuru seen couleuru politique ñu ñëw taxaw taxawaay personne doomu aadama pour acte yu rafet pour def ko ñu yooyu la ñuy séntu ñoom mais. bëgguñu seen ci ñoom ay affaire de politique ci biir Almere yi loolu rafetul daal je vous remercie. man loolu laa mën a wax suñu rek lépp gën la loolu laa mën a wax lépp